Assalamualaikum. ñi ngi nuyu ñep di ziar ñep euh ñëw si jàkk ñu ñëw si daara daara daara alxuraanu Njuufeen comme ni ñu koy defee chaque 2 3 mois ak ramadan bi ni sax ci collecte yi nga xamni ñu koy laaj sa suné yu tambali ko ak nongo yi assalamualaikum أعوذ billahi minash الشيطان rajim Bismillahir rahmanir rahim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 يد الطعام مساكين فمن تسوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان فمن سهل منكم الشهر فليصم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام النقر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله كم نينكو واخي دار mom euh, ñi nga xam ne xam nañ d'habitude samay live xam nañu dara gi dara jo xamni mi ngi fi Ndioufène xalé yi nek fi jóge fu nek ci coin ci Sénégal di jang fi alcorane dara ji nak dara ji lo jo dara lo jo xamni ni euh, xale yi dañ fi jang dara ji mo yor bopam waaw daara ji mo yor boppam euh, donc ñun ñu bëggoon rek ci wéru koor bi ak yi nga xamante mom la xalé yi di dundé ak nek nekkuwaay ak dëkkuwaay yi ni ngeen ci yag jappé jamono bu nek comme ni ngeen koy défé alors ñuy wax jamono bu nek rek né jaamu yalla mom ci jaamu mi yomuna képp koo xam ne mën nga dimbalee xale yi lu ñuy ndogoo lu sëriñ bi du ndogoo lu ñu nekk fii ci daara ji si kër geeg dundin beeg nekkin bi yëpp ngeen jàppaleen ci jàppale leen si comme ni ko defee saa su ne fi chambi di laa ndax dëgg yàlla bu fekkoon ni am nañ lu ñu bëgg ci état du Sénégal ci système bi kon duñ def lii mais lii mooy dimbali xale yi wàññi yalwaan bi képp ku foo mën a nekk foo ay nekk ci àdduna bi foo ay nekk ci senegal ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan nga jàpp ci

lii tamit ndimbal la si ñun waaye ndimbal la si ñu koy def tamit. waaw lu fi waay def rek sa bopp moo ko def. dëgg la kon nag ñu ñaan ndimbal si ñun ñëpp tamit ba tey di wax ne numéro bi daal lu fi waay namm rek incha allah numéro oustaz Aidara Faye. Mhm. mooy 77. 77. 671. 671. 95. 95. 77 671. 95 17. 77. 671. 95 17 mooy numéro bi nga xamante ne nii képp ku bëgg def fi sabilillah dimbali xale yi dimbali leen ci ndogu daara bi mi ngi njuufeen yoof tongoor la nekk yoof tongoor njuufeen xale yi nag fu nekk lañ jógee ci coin Sénégal di jàng si fii soxla matuwaay yi soxla nag euh, lu ñu dundee ndax daara bi dañuy bëgg wàññi bu baax yalwaan bi et tout fii la ñuy toggale xale yi fii la ñuy lekkee fii la ñuy defee lépp wàññ baa ngi nii yëpp ngi nii donc ñu bëggoon ngeen ci participer ñu ñaan àdduna bi képp koo xam ne mën nga jàpp ci ci lii rek nga def ko te yàlla tax ci weeru koor bi xale yi li ñu dundee ak yooyu parce que day gën a wàññeeku boo seetee te yalwaan bi tamit day metti si koor gi alors moo tax ñu doon ñaan pour ngeen jàpp si yéen ñëpp daara Njuufeen la euh, may fàttali rek ma leen di fàttali baax a baax ni daara baa ngi nii xalam ma ñu foofu waaw jaa ngi nii fi xale yi di jàng alxuraan ku mën a jàpp ci téere yéeg li ñuy dundee yëpp ku ci mën a jàpp rek nga jàpp ci jàppale xale yi bu baax a baax a baax waaw donc loolu daal mooy kàddu bi waaw maanaam numéro bi daal ñu fàttali ko numéro bi am na Wave am na Orange Money waaw euh, Aydara Faye la oustaz bi tudd oustaz Aydara Faye 77 671 95 17 ay ci bismillah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 اللهم زيدنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بقلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن آمين جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم دعنا القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة سفيها وعلى سراج نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإمام بفضله وجودك وكرم يا اكرم الاكرمين اللهم اهدنا بهدايه القران وعافنا بعنايه القران ونجنا من النيران بكرامه القران وادخلنا الجنه بسبعه القران امين يا رب درجاتنا بفضيله القران امين يا رب عنا سيئاتنا بتلاوه القران يا ذا الفضل والاحسان سبحان ربك ربنا سر عما يصفون وسلام في الدنيا والاخره على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا رب جرجف جرجف جرجف